salaamaaleykum mbokk internetu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek euh, bu actualité amee ci réew mi rawatina actualité yi nga xamante ne nii c'est des actualités people euh, mu nekk loo xamante ne day soxal sénégalais yëpp bëgg wax ci andil leen ci ay leeral yoo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla ku ci nekk rek di nga ci mën a gis sa bopp. donc comme ni ñu koy defee tout le temps euh, tey nag ñu ngi dalal koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal donc nag ci li ñu war a wax nag moo nekk rek li nga xam ne actuellement moom moo lëmbee jamono euh, muy euh, le problème mu Amidou Sidibé waaye nag balaa ñuy wax ci loolu dama koy bàyyi mu nuyanteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy internetu Feeling Dakar yi ndax nag euh, moom Feeling Dakar la bokk ci kër gi la bokk internetu Feeling Dakar yi miin nañ ko lool yaay booy maa ngi lay nuyu. waaw di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani di sant yàlla bu baax di ko sant. julli ci yonent bi sangu sang yi sallallahu alayhi wa bi sant Sëriñ Tuubaa xaadimu rasul mhm. di gën a yeesal sama njébbal naan ko mbàkke bàlla aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar mhm. duñu mos a fàtte sëñ mu mbàkke bàlla sëñ Muntaqa xaadimu rasul moom nga ne moo fi teewal Cheikhul Khadim doon fi ci àddina bi mhm. ku ci nekk am nga xarit na am nga wullëre nga koo bëgg ci sab xol muy Sëriñ ci teg Sëriñ Moustapha Sy al Maktoum sëñ Moustapha Sy sëñ Babacar Sy sëñ Moustapha Sy Seydi Hadj Malick sëñ Moustapha Sy Ahmada Tijani ah, di ko ñaanal yàlla si Malick guddal fan lool Feeling Dakar nag moom bilaay bisu duma xotti rek bisu duma xotti monsieur Diop mm-hmm. Mm-hmm. noonu ki nga xam ne moom mooy euh, maman Selbé moom la ñu dalal donc bugguma ko woon a nag annoncé dama bëggoon bàyyi rek mu defee ko comme ni mu ko defee nii wone boppam euh, wax li nga xamante ne nii moom la yëg euh, ci Feeling Dakar aussi comme ni ma leen ko waxee noonu la ko waxee dégg nga li nga xam ne wax na ko nee na bisu da koo xoj donc loolu mooy wane na rek Feeling Dakar la bokk donc yaay boy li nga li nga li ñu war a waxtaanee tey mooy rek euh, jamono yëngu na jamono jaxasoo na jamono ji euh, fi mu toll nii ñu ngi ci euh, période Covid 19 mu bëri lool. ku nekk nag am njàqare mm-hmm. waaye nag ci kaw loolu dañu am leneen loo xamante ne nii dafa dalaat suñu kaw ba sax nag ñuy fàtte rek li nga xam ne moom mooy Covid bi parfois muy le problème de Amadou Sidibé mi nga xam ne féticheur la nekk malien ñëw ci suñu réew. donc def ci jëf def fi jëf joo xamante ne nii euh, wax dëgg fa yàlla kenn mënu koo kenn mënu koo natt euh, ndaw loo xamante ne day daan dooleem di wuyoo ci turu Lobe Ndiaye mu faat ko jël bakkanam mm-hmm. ba ñëpp fi mu nekk nii euh, seen xol tooy na lool loolu noo ko gisee. xanaa am lu ñu metti rek am na ñu metti parce que trop c'est trop nag vraiment trop c'est trop la ma waxoon ci góor jigéen ñi. ku fi def góor jigéen nañ dagg sa awra tàppit dagg moom laay wax ci Sidibé moom nañ ma indil Sidibé ma daggate ko. yaay booy barke Seydina bu ñu ma ko joxee président may ma autorisation ma daggate ko ndax dafa jóge Mali bàyyi fa jabar bàyyi fa mag bàyyi fa rak bàyyi fa baay ñëw ba ci Sénégal c'est que président li laay war a suulee waaye waaye waaye boole ñu ci waay. Mhm. vraiment dafa ëpp temps yi doomu lañ feree benn xale bu jigéen fële ci ci taatu géej gi ci filaago yi mhm. rey fi keneen koo xam ne benn xale bu koy jóge fële rey koo xam ne nee dañu génn ak man da ko yor trois cent mille xaw ma cinq cent mille dem tëb mi rey ko vraiment rey dafa ëpp mhm. Macky Sall le président de la République du Sénégal maa ngi lay ñaan ci barakati laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah xam nga nit ñaa ngi def marche mu ne day def euh, loi pour terroriste mhm. mais tegal loi ku rey nit ñu rey la ku daggate nit ñu daggate la ku jam nit ñu jam la ku sàcc ñu dagg sa loxo mhm. parce que dañoo nekk ci dëggu Serigne Touba Xaadimu Rasul Seydi Hadj Malick bu contact maam li maa max di xool sëñ Muntaxa li def xool sëñ Moustapha Sy li muy def chef religieux yaa ngi fi macha allah mais siribe indi leen ko dama koy dagg barkati laa ilaha illallahu am naa fital ñeme naa ko ay waaye rey naa doomu jàmbur xale bu am jom xale bu am fulla am fare nangoo liggéey léegi nag ne ko nan lañ koy bëgg a di euh, def nii na lañ bëgg bàyyi siré bi tëj ko kaso rek après bàyyi ko waaye su Macky Sall notre président notre fierté sarax ñu lillahi wa li rasulihi man Selbé Ndom man maa wax ne nañ ma jox Sidibé ma daggate ko na mu def lobe noonu laa nu raw laa koy def ndax xëy na dagg na lobe sax te de bopp ba xàmmee nañ ko. Mm. bopp bu mu Sidibé mën naa ko bàyyi waaye danaa ko daggate morso morso parce que dañu jóge seen dëkk ñëw fii Sénégal dëkk teraanga la mm-hmm. soo xiifee la jox lekk soo maree dinañ la jox boo amul foo dëkk dinañ la héberger ñu war a xam ne Sénégal dëkku teraanga la. mais dañoo sonal fàtt nañu man na xam ngeen ci li ma seet wax loo xam ne ñëwagul la première dame du Sénégal la première voyante macha allah aw ma caaxaan jigéen di fi toj mi ngi nii. parce hmm. que Seydina Mohamed. Hmm. di wax loo xam ne ñëwagul di takk sër. di wax événement bii di ñëw nii la war a ñëwe yàlla may ma ko sama numéro 77 744 39 18. 77 737 67 46. yéen waa bitim réew yi nga xam ne dañ leen di nax naan leen selbe la. Mhm. waa bitim réew yi nga xam ne dañ leen di nax naan leen man la selbe nañu arrêté loolu. Mhm. ma joxewaat samay numéro 77 744 39 18. 77 737 67 46. ma soxla danga may woo te Sidibé moom nañ ma ko abal Macky Sall lii yow mi njiitum réew uuf ñu nit ñi yàlla yàlla jox ñu la yow rek yaa ko mën a saafara ci bind loo xam ne ku sàcc ñu dagg sa loxo mhm. ku jamaate ñu jam la ku rendi nit ñu rendi la loolu rek moo koy fekk mhm. buñ ko defoon benn nit rek teg ko xool Arabie Saoudite kan moo leen gën a jullite mais am na loo xam ne boo ko defee boo sàkkee dañ ñu dagg sa loxo. Mm-hmm. am na noo xam ne boo ko defee dañ ñu taxale sa boppam sa baat. Mm-hmm. mais lii gis nga buñ ci buñ ci jógul heure bii papa lii buñ ci jógul du baax. te euh, li ci gën a doywaar mooy nag euh, dañoo dañoo dañoo gis ne ki nga xam ne moom mooy euh, Amadou Sidibé c'est pas la première fois. muy def yu yu ni mel. ndax nag boo xoolee kanamam doguma la boo ko xoolee kanamam gu weewaaral googu kanamam gu wow googu nga xam ne ab assassin mais kii buñ ko baal nañ ko rey. tey ci suba gi euh, lañ ko sax nag defeere. oho defeere dana lekk. Mhm. dana xëy ndékki. defeere dina añ. defeere su guddee dina reer. dana sangu ba set dana dugg ca toilette ba. waaye mhm. waaye nañ ko xañ loolu. bakkanu jaam ba mu xañ. xoola nañ ko njëkkee kër lobe rek. waa kër lobe yi rek jox leen ko. ñu saax saaxee ko ah. sénégalais yi ku ci nekk ku ci nekk rek man rek barki Seydina Mohamed buñ ma ko joxee na def la be xam nga Seydina Mohamed du ma ko waate parce que jigéen ñi dañoo sonn ay président de la république Macky Sall lii moom ëpp na ñun yow la ñu am te yaay suñu bàyyi mhm. yaay bàyyi réew mi mhm. yow yaay yaayi réew mi mhm. yaay nijaayi réew mi yaay lépp réew mi ndax tey jii boo fi taxawee nii lii day am loolu day am am lii du am monsieur le président waaye gëstul étranger yi jógee fële di ñëw fii Sénégal lépp a ngi fii dañuy génn étranger ñëw fii dugg si suñu réew lu nekk lañ fiy def mhm. am na ay sàcc yu bëri ay la leur yu bëri yoo xam ne nekkuñu ay sénégalais mhm. façon nationalité bu nekk day gis kon maa ngi lay woowaat Sall Ngaari yow ku baax nga ku am jom nga lii moom Sidibé moom ak ña ko def ñëpp nañ leen génne kenn kenn rek. Mhm. vraiment métti na képp kuy jigéen am sa doom ëmb ni méttee juróom-ñeenti weer nàmpal wasin ba pare nàmpal boot defar ba nga commencé am njëriñ ab kii kii xanaa xaj sax moo tane Sidibé mi. Mhm. Euh, fi mu nekk nii nag li nga xamante ne moom la sénégalais yi di wax nekkatul rek euh, le problème de féticheurs pour ñu génne leen Sénégal waaye li ñuy wax nag mooy nañu xool Sénégal ñi fiy dugg ak ñi fiy génn ndax nag dugg bi dafa yomb. waaw xam nga man dégguloo li ma la wax. Hmm. buy dugg Arabie Saoudi. Gàmbi gii rek boo fuy dugg gis nga caméra yii. Hmm. dañ lay foto xam ne dugg nga Gàmbi gii. Hmm. Gàmbi gii nga xam ne ñun sunu sunu réew ëpp Gàmbi téeméeri junni yoon. Gambie gi rek boo fi dugg dañ lay photo xam ne yaa ngi dugg Sénégal nag moom daal wax dëgg yàlla man senegaal man mag sàll teg ma sa wet rek nga jox ma wàll woowu. Hmm. lillaahi wa li rasuulihi ma leen di saafara barke Seydina Muhammad woo ma ngir yàlla jox ma wàll woowu man maa leen di lijjanti man taalibi Sëriñ Tuubaa laa xool lu jógewul ci yàlla fii la may baax Sénégal man doomu laa fi gis Selbé Ndom poojam am alquran muy gis loo xam ne ñëwagul gisuma keneen ku ko fi def kon nag sax nam jox wàlla woo ma rek lay ma rek lay gars yi barke bi mën naa ko parce que kenn du ëmb sa doom juróom-ñeenti weer wasin ba ñoo ngay bëgg a dee nga nàmpal di defar ba gumbawul partul làggawul ab xaj boo xam ne xaja ko tane doomi haram sax laay wax jóge fu ne bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi ay mbokkam jóge foofu ñëw fii ki suñu réew du ñu faat déedéet loolu Macky Sall jóg ci bii nag moom du ma la xool nga di ko seetaan bii moom bii moom bii moom doo ko bàyyi mu seet. Mhm. gis nañ ni tamit yéen ñi nga xam ne yéen yéen a ci ne yéen a ngi def liggéey bu mucc ay waaye kenn mësu leen a dégg ci yenn ñaawteef yi lan moo waral nag euh, yenn ñaawteef yi di am jógee ko ci yeneen ci yeneen i nationalité ñëw fii euh, ci suñu réew. ñun dañoo amul jot googu xam nga ñun lu ñuy def. Hmm. man sel damay seet génne loola sarax. ne dafa saraxu lii wala saraxu laa wala saraxu laa. Mhm. yow ci bopp gis sa bopp yow nga def ko gis li ma la wax jëkkëran mhm. bu ma la seetalee doo wax déedéet dara jëy laa ilaha illallah muhammad rasulullah ne la yow mii kat génneel saraxu nangam su ma la koy génneel danga koy gis. Mhm. waaye seetkat du rëy nit. seetkat du rëy nit. mais vraiment trop c'est lii dafa ëpp dafa ëpp. Mhm. mu ngi noonu euh, mbokk internetu Feeling Dakar yi ki nga xam ne moom mooy euh, maman Selbé moom la ñu dalal ndax nag euh, comme ni ma leen ko waxee rek saa su actualité amee rek dee leen ma xaar ci Feeling Dakar ak ki nga xamante ne nii parfois moom mooy Tima ci moom lay àndal ci actualité yi. donc ñuy wax ci ki nga xam ne moom mooy mbirum Amidou sidibe ak faat bi nga xam ne def na ko jëmee ko ci Lobé Ndiaye. nañ ma jox nañ ma jox Amidou Sidibé moom. ma daggate ko. waaw xoolal ci moom daa bàyyi ndeyam bàyyi baayam bàyyi ay mbokkam ñëw ba suñu dëkk ñu di ko jox xaalis mu boole kook di reyaate di dóoraate ay ay cour nañ nañ ko jox nañ ko jox sénégalais ñu dóor ko màtt ku am sa si dóor ku am sa paaka jam ku am sa xeej nga samp parce que lii c'est trop dafa ëpp waay vraiment désolé. waaw ci xam nga ci kaw loolu yaa ngi may wax sànq naan ma nañ ko jox sénégalais yi parce que sénégalais yi si boppam ñoom dañoo sonn ci nit jóge fële di leen def euh, naka su du noonu ba tey ñu gis ci kaaw ki nga xamante ne moom mooy Kunkande moom du sénégalais à 100 pour cent jóge gi ne ñëw na day xar géej gi loolu tamit war na nekk loo xamante ne war nga cee mën a wax. loolu yéen a gën a tey ne yéen ñuy jox Kunkande micro di ko jox mu jël kanamam googu def ci lantin maa ngi nii jigéen laa ah. je suis ne naturel rafet naturel diw dafa baax defar sa bopp def yëfi kii dund mais kunkaan dina xam ne góor la jox nañ ko respe na arrêté li muy def Moussa alayhi salaam moom mi nga xam ne yaayam da ko jur sànni ko ca géej ga histoire la jamono yooyu na bëggul góor gu juddu góor bu juddoo dañ koy rey moo tax yaayam def ko ci pañe dugal ko ci biir géej gi far jabaru Firawna for ko

Dakar, notre plateforme d'information.